ki sooy ànd moom dangay ànd moom ngir yàlla sooy bugg da ngay bugg te yàlla tax lu la ca fekk nga xam ne yàlla yàlla mii moo ma fayee lii ci suma mbuggeel gi ma bëggoon te yàlla tax yàlla kum liggéeyloo dana la fay te yàlla moo ñu sante ñun jigéen ñi ñu sëy te day sëy ngir yàlla ak yonent bi sëy sunna la waaye nañ koy def di ko def bu jag di ko def di ci yërëmaante di ko def ci buggante nit ki soo ko buggee doo ko desel dara man am na benn waay bu ma doon wax mu ne dafa gis jabaram dafa buggante ak jabaram mu ne jabar ji bugg ko ba moom sax dafay rus ni ko jabar ji buggee mu ne mu nattu jabar ji toog rek xëy rek ne ko dàq nañ ma ci suma liggéey bi di ko nëbbutu di liggéey lim ko daan jox mu di ko séef su xëyee su ko waree jox hundred dalasi départ 25 la ko jox ne ko ah tey de lii mu ne ko baax na baax na dinaa ci taraay ba juróom benn weer mu ne muy denc loola mu ne ba juróom benn weer yi jotee mu ne ko dëgg-dëgg amuloo morom parce que xam naa ne try nga te li ngay try def defuloo ko ci lu naqari yàlla defuloo ko ci lu naqari yonant bi li ngay try mooy ne dangaa dem ut xaalis am ku la abal ngay liggéey di teg susu di fay di liggéey di toggal sa njaboot gi man nag dàquñ ma fenn ci suma liggéey bi dama doon nattu ndax mbuggeel gi nga ma bugg a dem danga ma bugg ba ma rus ma doon seet ndax ngir yàlla ak yonant bi moo tax nga bugg ma wala suma place bu baax bi moo tax nga bugg ma yëkkati lam doon siif yëpp jox ko ne kon nag gis naa ne jàngee nga ci business jëlal lii nga di ci business te du tere ma di la yokkal sa départ la defar lu ne mm-hmm. loolu mooy ànd ngir yàlla ak yonent bi te kooku yàlla dana ko may doom yu barke mm-hmm. sëy boo ca amut doom sax da nga war a góorgóorlu nday ay saa ngi ñu di ko tudd fu ne mm-hmm. te amutoon doom ci sëyam ba te barke moo wàcc ci moom wàcc ci làmmiñam wàcc ci gannaama wàcc ci kanamam ba tey fu ñu tudd jigéen ju baax dañu tudd nday ay sa te amutoon doom kon sëy boo ci amut doom sax da nga war a góorgóorlu da nga war sëy te yàlla tax ndax sëy moom doom bi boo ko amee teraanga rek la la gàddul te yàlla mooy borom teraanga dana ko defal ku nekk. kon yal nañu yàlla may euh, euh, waa ji nag euh, bi ma doon waxtaan ak moom. Mhm. mu wax ma nag lu am solo mu ne ndax moom bi mu doon sëy ak ku jigéen ki kenn ki bi mu doon sëy ak ku jigéen ki tubaski bu ne moom mooy jox yaayam xar. Euh, weeri koor gu ne mu jox ko euh, saako sukkur mu ne waaye biñ tolloo si jafe-jafe bii ba jabaram ne ko may ma suma baat te mu euh, mu ngi bugg a jabaram ba léegi mu dem si yaay ki nga xam ne mooy ndaw si mu waxtaan ak yaayam mu ne yaay ji li mu ko si tegal mooy jigéen boo demee ba munatoo koo yor nga bàyyi ko mu dem kilifa yi tamit. njubadi gaangoog fu mu ko taataanee kër ndeyam da nga foog ndax ba moo laata wax waa ji ne ko may ma suma baat waxtaanul ak ndeyam. ba muy neex kaddu ya mu daan wax ci waa jooju ndey ji ko jur sax du ko ca wax waaye bu demee ba nga xam ne gis na ne la mu ca daan am amatu ko wàññeeku na wala doomam am na ci naqar mu dal di ko boot roggandi ko far ko ci gannaawam sawar ci nag fu mu jëm mu ànd fa moom di uti sëriñ na tas mbaa muy ko gunge di ko yóbbu kër xaali di làqu ci càmmeñ yi yaa a neex yenaan dimbale leen ma ndax sëy bi tas lii mu ngi fi du fi jeex ngor a fi nekkaatul ngir bugga bugga waaw te li ngaa bëgg yëpp gisuma foo ko yóbbu ci àdduna gisuma foo ko yóbbu génnut sax bunti kër gi ndax keroog bu ñu tegee boromam ci jaar ca bunti kër ga lépp lu ma amoon fa laa em ba mu daan dugg sax du ko yóbbu ca armeel ya kon ngirti ngirti gi lu muy war a doon lan la fi ngora fi nekkatut ngir dërëm bii ak bugga-bugga ak tiitar gu rëy te kenn du fi yóbbu dara yomal xiyam te ña demoon ñëwaguñ te dootuñu ñëw ñun ñoo leen a fekki kon doomu adama benn bu ne war naa bàyyi xelam ci kala jël def la ngay nit yëkkati la ba àddina yëpp bi la gis bu demee ba nga xam ne loxoom sooxee na nga xam ne foofu la toll nga seet ci doom yi nga jur ndéem jur nga ci day ay doom nga seet doom yi nga jur ndax kat suma yaay daan na wax ne ah jeeg buy silipaasu bu doomam màggee mu bu doomam màggee mu koke mu koketu buñ ko waxee li ñu ci jublu mooy dang booy sonn ci sa sëy di ci torox la nga bugg amuloo ko hmm? la nga bëgg amuloo ko nga dema dema dema dem ba say doom màgga barke booba nga doon taxoon nga doon sëy ak ngir yàlla googa nga doon taxoon nga doon sëy mooy wàcc si nag ci say doom lépp ñàkkoo ñàkkoon di nga ko am ba keroog bañ laa tàdd dugal la bàmmeel dama foog ne foofaa génn njëlbeen du dara la waaye am na ñoo xam ne njëlbeen rek lañ gis ci seen àddina bu bañ nañu ko be dépasse bi keroog boo xamee ne dépasse bi manqué na ci biir kër gi sax boo ñëwee gis ko ci seen kanam yaay ya meluñu woon noonu maam ya meluñu woon noonu la daan ruus ci dépasse bi ndax marché neex na ñoo ko daan wax bu lu ca ruus nga ubbi ut boy rek ne def ko ca keroog ba góor gi xëyee julli fajar romba la liggéey nga xam ne kii day poosam dara newu ci tey nga dal di wax waq sa boyet togg ceeb boo xam ne kenn du la ko mun a wax buy ñëw dafa yurndoo ndax xale yi lekk na ñoom déet fa la barke di wàccee ci kuy sëy su ñëwee ah da nga togg nga añ nga ne ko waaw togg naa añ foo amee dépasse mu wax la fi mu wax la li mu dencoon loola leen di daan utee barke waaye jamono tey jii gis nga nag ku fi naan loolu day jeeg bu fi seyte naan loolu day man mënuma ko ku fit dëkkee mënuma ko wallahi di nga jur ko mënul dara loolu man maa la ko wax bu fee loolu mënuma ko loolu sa jëkkër wax nga ne loolu day man duma ko def xanaa yow yaa ma gën di nga di jur ko ñëpp gën ko mënul dara waaw ndax li ko waral jëkkër kàddu la jomma ji nawle woo la yéen a ko bokk waaye nag am na yenn kaddoo ngi ci kàddu jeeg war koo yëkk yëkkatee di ko teg ci kaw jëkkëram na seet ci ay doomam waaye jàngom euh, comme que mbiri xaalis la ñuy wax man damay wax ne léeg-léeg nga gis sëy yoo xam ne bu ñuy takka bu ñuy takka xew ba góor gi dina lim jotoon a seef yëpp anti aw wax na ko fi lim jotoon a seef yëpp dina ko def si sëy boobu noonu waaye yow léegi li nga jotoon a sëy seef boko defé ci sey bi ngeen sey ñaar ñetti ñenti at rek ndol ga commencé xam nga lolu yeb dafa indi ay jafé jafé bi li waw la jigen warut sey ngir xaalis mm. waye pour man sima suma gis-gis bu féké né yow li nga save sa account 10000 la yaakaar na ne boy xew da nga wara xew ak according to li nga am waye bul jël 10000 bi yeb nga dugal ko ci ben xew waye jànq lépp lu wax rek ñoñu ko laaj la bel laaj la sa ndey ak sa bay ñan ñan ñoñu ko tej ñu jigen ñi. way man dama foog ne goor ñe maye di. wa ndax titer go ku laaju duñ la may ku laaju duñ la may dañuy dañuy dañuy digge lañuy digge ak yow ba pare ngoro ca wañ wa ne la nak laaj ko nangam ak nangam man mi sa yaay dama xew te nak yaangi nim jot ci li waji am tay wax la kaddu gogu noy def lamu la warona wax du lolou de. emaleel sa bëgg bëgg ci moom ndax bu ëllëgee moom mun laa yor moo ki bokkam. anti aw waaw man li ma wax rek suma wax ju njëkk mooy suma wax ju mujj ndax suma yaay daf daan wax mu ne may gu njëkk may gu dëkk ku la ko wax de. may njëkk may gu dëkk ku gën ndax génne fi ay yow tey nga bugg a takka jabar xañ na sax amuloo weer bu weer bu dee bu jot five thousand nga bugg a takka jabar. ne danga def may gu njëkk a twenty thousand yaa ngi dégg jabar ji dañ la ci war a dimbale yaa ngi dégg ña la war a dimbali ci biti ku nekk nga oo ko ne ko damay yóbbu may gu njëkk mu westan wi ne yoon la two two two thousand ñu dajale ko muy xaalis bu bari ñuy yóbbu ko yow buñ la twenty thousand boobu boo ko lijjantee ba may ko ndaw si amaguloo kër goo ko dugal sa yaay sax lala war ci moom ak sa sa sa papa defaguloo ko ci nga dem eh, ñala la war a dimbale ëllëg boo coogee demee ba nga xam ne tey waa ji fi mu toll ba jàkk ba jëkkëram naan ko jabaram naan ko may ma suma baat toll na fa am rakka yu génne ci biti war ko Western yoon ay two thousand ay three thousand muy dimbali ko di suturaal boppam mm. fekk na loolu yëpp defoon nañ ko ca xew la wëccee ko jabaram yëpp ñu def ko ay morso ak ay plastique teg ko ci ëtt bi tasaare ko nit ñi jël doom doom ji jox la kooku yaakaar nag ne lu dul jeex moo nekk ci biir kër gi fekk suturaa fa nekk wala la ngeen amoon yàq ngeen ko ci ëtt bi tasaare ko ku nekk yóbbu sa wàll mm. ñu yëkkati doom ji jox la bët set la nga ca waroon a def mënoo ko caa def mu xeebee la ko moo tax suma yaay daa wax ne mu ne may gu njëkk may gu dëkk moo ko gën nañuy seet li nga xam ne dañ ko man ñu di ko door booy door dangay door lu ndaw mhm. di dem di dem ba ba ngay amee defee lu mag yàlla sax mënoon naa samp àdduna bii yëpp ci benn fan mhm. waaye defu ko te lu fi nit man ci kàttanam ak coobareem nga ko manee mhm. kon kuy def da ngay jéem di def def lu em ba ba ngay mën a defee lu bari wala ba ba nga gisee lu ko jar nga soog a def lu bari ndax ànd bu ees dafa neex dafa neex soo de ci dooree def loo mën ak loo mënut su ëllëgee danga koy réccu rek réccu te dafay ñëw waaye ba tey rek dafa mel ni topic bi suñ mbokki jigéen ñi rek lañ war a yedd ndax kóllëre ak orma ñu fexe di ko am waa jooju nag mu ne moom du takkati jabar juróom-ñaari at ci takkut jabar ndax ñemewut jigéen ñi du jigéen ñi ñëpp ñoo em mën naa tase ku ko dimbale mën naa tase yàlla boole moom wërsëg mën naa tase ko bugg a dimbale ko kon loolu moom warta tere moom mu takk jabar ndax yàlla bu la nattoo yàlla ki mu bugg rek lay teg nattu su la buggee ci la lay teg nattu boo xam ne bii da ngay foog ne ndax sax daf la jéppi fekk daf lay natt nattu loolu noonu teg ko dañuy wax ne ku du toxu mhm. doo xam fu dëkk neexee mën naa dem ci koo xam